yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi mbokki jullit yi wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyoo fii ci jumaay Touba ci taxawaay bu am solo bi nga xamante ni daayira Muxaddamatul Xidma ci ndigalu Cheikh Mamadou Muntaxa ñu ngi koy taxawee fii ci jumaa ji ci weeru koor wu ne ci ay waxtaan yu am solo yoo xam ne ñu ngi koy fego ak ay kilifa yu fasanti ko ci dëkk bi borom xam-xam ñu bari di ko teewee si fii ñenn ñi di ko topp ci li nga xam mooy di euh, internet bi buñ ci noppee nag ñu ñëw fii nag ci dogukaay bi ñi nga xam ne ñoo taamoo dogo fii ci euh, keppaaru sëñ bi ñu am sens su mën koo def ñi nga xam ne tam dañoo mel ni man xëj na seen tolluwaay demeewul noonu ñu mën ko fay def ñi nga xam ne ñooy ay dox doxandam itam doon dox ay yitte. boo doog fekk leen ci àll bi ñu mën a fii def defee ko noonu bu ñu ko defee nag dañuy fii faral di euh, woo euh, bokk ak ay kuréel yu am solo yoo xam ne ci dëkk bi la ñoom itam ñu fekkee si ko bu ñu dégloo waxtaan wi ba noppi nag ba ndogu ba noppi ñu joyal seen i kàddu tey jii nag daayiratu ansaar diin al islami bu al azhar ñoo fi teew si tey ànd ak délégation bu am solo jëmbul sëñ Fallou Bousso Hassan moom lañ jox kaddu kaddu gi bu jëlee kaddu gi incha allah dina wax ñi nga xam ñoom la àndal ko defee mu joyal ay kàddoom ci taxawaay bi nga xam daayira Muxaddamatul Xidma kóllëre googu mu ngi koy dox saa su nekk waxtu ne di leen woo di leen safoo ngir den ngeen doon ay boromi xam-xam euh, yoo xamante ni ràññee nañ leen ci dëkk bi ngeen di ko defee ci anam yu am solo ngeen bokk sax ci ñi nga xam ñoo yéen taxaw ci liggéey bi ñu woowaat leen ci beneen anam kon nag yooyu lañ bëggoon ngeen def ci ay kaddu jàngat ko defee ñu jox la kaddu gi suñu fàllu bu subi asalaamaaleykum wa rahmatullah auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu kon bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi yëkkat sunu kàddu ci turu délégation bi nga xam moom lañ àndal te ñu bàyyi ci ndigalul Serigne Saliou Mbacké al mudirul am bi jiite daay al yi ak mboolem ñu sëqal liggéey bi waaye mu bàyyi ko ci kilifteef Serigne Mamour Mbacké Mourtada mi nga xamoon ne ci bopp al azhar ñu ñëw fi ànd ak délégation bi nga xam ñoo lañ fi yabal ñu teewal leen fi ànd ceeg Serigne Ahmadou Samb al mudir nga xam moo nekk mudiru Daaru Salaam ànd ak euh, sëriñ imaam sëriñ Murtada Abdul Khadim nekk mudir <coughs> ci Guy Mbind Cheikh Mouhamadou ci Guy Mbind 2 ànd itam imaam Hassan Diouf ànd itam sëriñ Xat Fakk Sëy ak sëriñ Birange ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom lañ ñëw jëmmal jotaay teewal fi sëriñ saali waaye teewal fi njaboot ko asar gépp nag ci ànd ak daayira Muxaddamatul Xidma ci liggéey bu mag bu sell bi nga xam ñi ngi koy def weeru koru jot di def ay waxtaan yu am solo buñ noppee def ay bernde ay ndogu teral la ko bokk jullit yi ak bokk taalib yi te waxtaan wi ak ni nga ko waxee léegi ñi nga xam ne nii Touba ku ne xam ne dëkku gan la doxalim dañ fi bari ku dem ba waxtu doog fekk la fi nga mën a jàdd fii def def li nga yittewoo doora mën a waaj julli doora àggale soo yoon liggéey bu boo xam nag daayira Muxaddam mi ngi koy at yëpp nag di ko ànd li tarbiya li tarbiya mu asatul islam li tarbiya wa taalim at mu jot ñu ñëw fii ci délégation bokk ak benn ci jataay bu gën a fés donte jotaay yëpp ñoo ngi ñoo koy bokk waaye xëy ci am boo xam moo gën a fés sëriñ bi nag waxoon ne bu ñëwee nañ ko jottali kàddu cant ak ngërëm loo xam teg na ko suñ loxo mu jëm ci daayira Muxaddamatul Xidma waaye jëm ci sëriñ Afiya Bousso mi nga xam moo jiite daayira ak mboolem yi nga xam ñoom ñoom lay bokkal di ci daayira di rafetlu liggéey bu baax nag dina di ci wax am taxawaay bu rafet boo xam daal yéen ngi koy am ci weeru koor wi ak ci liggéey jumaa ji ak ci lépp loo xam dafa aju ci Eh, li ñuy barab yi ñuy jaamu yàlla ci dëkk bi di Touba sëriñ wax ne loola ma asat azar ci wat wat gim taxawee te mayatu jàng gis na ne man ngeen ci ànd liggéey ci bu baax ci liggéey ci semi liggéey ci lislaam waaye liggéey ci yoon murid gépp loolu nag kon ni ngeen ko tàllal loxo tam azar mi ngi leen tàllal loxo ci lépp loo xam moom tam mi ngi ciy yëngut rek fas yéene ñoo ngeen ànd ko ak moom ndax liggéey bi benn bi la da ngeen a fare fii rek ñu fare fale waaye lépp ci benn tool bi la ku nekk da nga cee jiital waar ku nekk nag waar wa nga jiital bu setee rek tool bi dafay daal di set kon sëñ bi neen mi ngi leen di dolli kàddu yu ñaan ak cant ak gërëm di jot di cant ak ngërëm tam mun Mouhamadou Mountakha al Khalifa nga xam ne mun yi nga xam li lépp liggéey bépp ci maanaam ak yaatalam ak xërëm ci la lépp mën a sottee ñaanal ko mu yàgg fi loolu te wér waaye itam nag ñaanal bu baax sëriñ Mamour Mbacke moom Cheikh Moutada nga xam ne tey liggéey bu am solo bi muy def ci lislaam bi di ko def ci xale yi di ko def ci adduna bi waaye surtout rawatina di ko def ci mi moom itam suñu gën koo kattan gën koo dëgëral ba liggéey bi nga xam si Mouhamadou Mourtada moo ko somboon te defar ci ay joomi jullit yu bëree bëri loolu gën koo kàttanal ak ñi ne ci gannaawam bañ mañ ko àggale foo xam ne dañ koy njortu si Mouhamadou Mourtada loolu bi nga xam ne nii moom lañ àndal di jot kàddu yi cant yi ngërëm ak ngërëmul sëñ ak cantam di leen ko jot di ko jot mboolem daayira Muxaddamatul Xidma di ñaan ñu teew ko at yu bëree bëri nag ànd ak liggéey bu ñu nangu